dal leen ak jàmm ci fi nga xam ne moom moo di seen télé ah, ci ah, YouTube di xam ne moom moo di La Voix de Bargny wala LVB TV ah, tey nag ci seen émission jàkkaarloo politique ñu am gan boo xam ne spécial mu di Assane Mansour Mbengue Assane Mansour nag ci gàttal suñu mënee wax moom mooy ki nga xam ne daanaka moom mooy jiite CCR di cadre yi nga xam ne ñoo nekk ci APR ci département bu Tëngéej ba noppi nekk responsable politique ci biir bar euh, Bargny ci wàllu ñi nga xam ne ñoom ñoo di APR euh, tey nag euh, Assane Mansour jàll nañu ci li nga xam ne moom moo di élection présidentielle yi yéen ñi nga xam ne yéen a yëngu ci wàllu politique ak yu ni mel loolu la ñu fas yéene waxtaanee ci li nga xam ne moom moo di émission bile. Assane Mansour Mbengue ñu ngi laa nuyu ci gàttal bu ñu la doon présenté nan la ñu lay tënkee. jërëjëf sëñ Moussa ñu ngi lay nuyu ñun itam ji la sargal. di wax ne ñu ngi sant euh, yàlla euh, di sant euh, population bargnoise bi di sant population du département de Rufisque et la population sénégalaise di sant yàlla surtout si élection yi ni ñu ko defee si ak dal di wax ne lépp sedd na ki waroon na gañe élection yi muy le président Macky Sall gañe na ko et il mérite aussi d'avoir gagné ces élections parce que ñun ñëpp les Sénégalais et les gis nañu ni mu muyee le maillot ci campagne électorale bi. alors tey jii nii bala ñu dugg euh, ci biir waxtaan bi sax suñ doon tënk Assane Mansour Mbengue mooy kan. Euh, Assane Mansour Mbengue nag benn euh, Bargnois la boo xam ne Bargny la juddoo màgge fi il a fait ses études à l'école mixte de Bargny. bi mu fa jógee mu def euh, ses études au niveau de l'école Matar Seck ensuite il est parti faire ses études n'est-ce pas de transit déclaré en douane au niveau de Dakar ensuite euh, il a continué son cursus en faisant n'est-ce pas le transit euh, je fus par exemple le chef de transit nest de la Panatrans euh, je le chef de transit n'est-ce pas de la SNAT au niveau de l'aéroport dirigé naa aussi société bu ñuy wax Socatram bon ensuite euh, j'ai toujours enseigné puisque depuis 1985 alors j'ai enseigné le commerce international et le transit transport logistique ba tax na alhamdulilah j'ai formé beaucoup de jeunes euh, bargnois beaucoup de jeunes du département beaucoup de jeunes sénégalais et beaucoup d'africains aussi nous avons aussi créé deux instituts de la place avec des camarades professionnels et universitaires. En 2002, nous avons créé l'Institut supérieur de commerce et de management. Et en 2006, nous avons créé, n'est-ce pas, ISMEC, Institut supérieur de management et d'études commerciales. Et jusqu'à nos jours, nous sommes toujours dans la profession. On continue à former les jeunes Sénégalais. alors muy lu am solo ci euh, fànn bi nga xam ne euh, moom nga fi yëkkati ci wàllu transit côté yi nga xam ne également euh, moo jëm ci fànn bi ci wàllum njàngale ak tàggate waaye tey Assane Mansour Mbengue lu la boole ak politique ndax mënoon ngaa yem ci la nga xam ne moo di xëy meeg gontu mi lan moo la dugal ci politique ba tey sa ànd ak ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall ci biir APR tey ngay jiite li nga xam ne moom moo di lii di CCR bi nga xam ne moo nekk ci département bu aussi ñun en tant que sénégalais moomuñu suñu bopp yàlla dafa def bon boo doon jël pourcentage des politiciens au niveau de la population bareyuñu mais dafa am ñoo xam ne yàlla daf leen nattoo affaire politique bi man personnellement euh, depuis 1978 j'étais au PDS j'ai toujours accompagné le PDS et maître Abdoulaye Wade waa Bargny ñi may dégg xam ma xam nañ ne j'ai toujours été un libéral et toujours été avec maître Ablaye Wade nous avons toujours soutenu le PDS mais en 2008 même en 2007 j'ai voté pour maître Ablaye mais en 2008 j'ai arrêté toute activité politique pour aller vers la société civile n'est-ce pas parce que je ne me trouvais retrouvais plus au niveau de la politique et du PDS surtout la politique du PDS à l'époque alors ma jàpp sama njàmbur 2009 2010 2011 par hasard si laa duggee encore ci politique jàppale le président Macky Sall ba ma koy jàppale en 2011 alors tous les combats aussi ma bokk ak ñoom bi ñuy def suñu congrès alors euh, avec les responsables n'est-ce pas du parti alors on se cotisait pour fair nos activités alors bi ñu demee en 2013 le président Macky Sall bëgg def structurer la parti il a commencé à monter n'est-ce pas les CCR au niveau des départements quelques CCR la ñu jot a monter Tëngéej jot ci bokk ba ñu koy monter aussi nous avons fait des élections démocratiquement malheureusement c'était deux Bargnois ñoo doon xëccoo le poste de coordinateur. mu di kan ak kan. muy man Assane Mansour Mbengue ak le professeur Amadou fay mais il s'est trouvé que pourquoi le président defoon loolu da doon bañ ñu bari di présenté wu mu ne képp koo xam ne bokkuloo ci APR avant la date n'est-ce pas du de décembre 2011 avant la date de notre congrès képp koo xam ne bokkuloon ci parti bi mënuloo nekk coordinateur poste yeneen yépp ku mu neex nga jël loolu moo taxoon ñu bari mënuñu nekk candidat yàlla def bi ñu defee élection Man d'ailleurs, ça, j'ai cherché un consensus, puisque euh, après tout, c'est mon jeune mais il n'a pas voulu. Nous sommes allés aux, aux élections et je l'ai battu par 68 voix par 48. D'accord. Donc Et il y avait euh, de postes à, il y a, pourvoir. à pourvoir Il y avait d'abord les 12 postes, n'est-ce pas, mhm. de président de commission. j'ai pris les 10 postes avec mes camarades. Il a eu deux postes. Et pour les présidents de commission aussi, la même chose. Depuis lors aussi, ñu nekk ci nekk ci liggéey bi nekk ci liggéey bi ba fi ñu toll. fi ngeen toll nii ah, suñu mënee jàpp ah, Assad Mansour ah, donc CCR bi su ngeen koy dégg mooy li nga xam ne moo boot cadre yi nga xam ne ñu nekk ci biir département bu Tëngéej te bokk ci waa APR alors. si ka euh, loolu nga xam ne moo di euh, groupe bi nga xam ne moom ngeen def yéen ñi nga xam ne ay cadre ngeen c'est que cadre suñ koy wax lu ci ëpp mooy ñoo xam ne ci xam-xam la wala lépp loo xam ne rek wala euh, ci niveau d'étude la ci njàng la ci tolluwaay la ci yore ay responsabilité est-ce que ñi nga xam ne ñoom ngeen bokkal parti yëg nañu taxawaayu CCR boobu ci biir li nga xam ne véritablement moo di base APR kenn ku nekk ci sa gox rawatina rawatina ci sa bos. au niveau de la convergence de cadres républicains le département de Rufisque tout au début li mu ci liggéey amul benn département bu ko liggéey parce que ñun bi ñu door a commencé dañu ñëw à Bargny ci bibliothèque bi def benn CRD au ñëpp au tous les présidents de commission ku ci nekk présenté sa atelier livre sa programme on a passé toute la journée et yemuñu ci benn bés boobu puisque def nañ ko fi ay Sendou def nañ ko fi ay Yène def nañ ko fi Lac Rose nous avons fait beaucoup n'est-ce pas de réunions beaucoup de programme mais malheureusement il y a certains camarades qui ne comprenaient rien du tout qui croyaient que si tu es membre de la CCR alors euh, égal égale un poste automatique cest a dire que le président va vous nommer directeur général ou bien PCA ou bien et cetera. ce que aussi du habitude bu ñu seetlu chez les politiques nga xam ne tendance bi mooy euh, des postes de sinécure dañu àndoon voilà donc bu ñu xësee ba falu ku nekk dañ la war a joxaat ab rôle jox la dara ci cër yi nga xam ne moom nga yelloo. mais xam nga aussi aussi nit ñi aussi dañu war a changer mentalité man des fois y a des gens qui qui qui me taquinent en disant que kii bëggul dara ah moi mais ku bëggul dara doo xëy 6 heures du matin sa kër di dem liggéey moi depuis 1985. cent euh, da ngay góor ci dara. waaw depuis 1985 je travaille mhm. n'est-ce pas maintenant la politique dañ koy def pour euh, non la la cité. Mhm. pour essayer par exemple si par exemple le président am na lu mu ñu wóoloo jox ñu poche. ñu jéem ko liggéeyal si suñu gox ak. asal loolu bëriwuloo ci ay morom de. voilà non problème bi li ci am mooy lan. parce que ñi xoolee noonu ci politique dañu leen di euh, seet mais bëriwuñu. ñu am na ñoo xam ne d'ailleurs ñu ci bëri bu doon dama garab la garab xob yi li ci das matul fukki xob ñu bëri bàyyi nañu ñi xaddi nañu et cetera nous nous toujours toujours là mais malheureusement au niveau de notre parti il y a des responsables yoo xam ne aussi. il ne joue pas le jeu et jàppale ñu le président Macky Sall lu tax ma wax ko mais si tu prends un Assane Mansour Mbengue qui est coordinateur des cadres mais qui appelle un autre responsable du parti qui ne répond pas qu'est-ce que cela veut dire mm-hmm. tout en sachant que moom si boppam mi may woo xam na ne bu ma ko woowee du ma ko ñaan xaalis du ma ko solliciter lu dul dama koy wax affaire parti bi et c'est ça qui existe dans notre parti même bu ma toogoon ak le président Macky Sall je vais lui de choses qui existent dans parti y a de ces personnes, on était toujours ensemble, ils utilisaient nos véhicules, n'est-ce pas, ils utilisaient nos moyens, mais actuellement, tu n'arrives pas à les joindre. man ces personnes là j'ai mis une croix sur eux. mais li ngay wax doy na waar de. non moo am te samay camarades ñu ngi may dégg am na ci camarades yu bari yoo xam ne Macky Sall jox na leen des postes de responsabilité mais y a des respons y a des leen sax wuyu. su su suñu éclaté woon tuuti euh, retenir un peu ci li ngay wax euh, sur un plan départemental parce que ñun foofu la ñu lay séntu yow kilifa nga cadre nga ci biir département bi est-ce que dafa niru le responsable euh, moral département bi nga xam ne moo yor APR e wala mu yor Benno Bokk Yaakaar comme par exemple ministre Omar Gueye. bon franchement le ministre Omar Gueye. ak ñu ko man a waxal si boo ko woowee da lay wuyu wax rek te yàlla tax bu la woowee aussi alors boo ko par exemple bu la jëlul après da lay woo franchement sur ce plan là léegi problème bi fan la. le doyen aussi boo ko oowee da lay bu paree da lay woo. moi j'ai pas ce problème au niveau départemental mais c'est niveau national. c'est au niveau national. Au niveau national, il y a de ces personnes qui étaient presque chaque fois avec moi. Ils utilisaient même mes véhicules. mais tu n'arrives pas à les joindre. mënoo leen citer. te bu non du leen citer bon seen der day yàqu je vous dis y a des ministres li ma lay wax ay ministres ngi ci n'est-ce pas ay ay DG ngi ci n'est-ce pas et puis bu ñu ma oowee man dama leen di uyu des fois damay dem sax ba duma leen bëgg a wuyu mais dama ne non ma comme yarewu ñu ma noonu et tout ça et pourtant ñu ci bari dama leen di dimbali. sur euh, la scolarité des des étudiants mhm. n'est-ce pas sur les étudiants à prendre amul koo xam ne presque euh, duma la ci dimbali. est-ce que dafa am lu muy impacter ci seen rapport ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di la base est-ce que dafa am loo xam ne également daf koy yàq ci li nga xam ne moo di seen diggaale ak militants yi. non malheureusement man li ma ci metti mooy si euh, volet boobu le président Macky Sall la ñuy yàqal. en tant que responsable acte bu ñu def acte négatif bu ñu def. nit ñi Macky Sall lañu le président Macky Sall lañu koy mere te du yëg du tin donc ñun ñoo ko war a nekkal ci base bi ñun ñoo war a régler les petits problèmes et je dis des petits problèmes puisque un 10 000 francs ou bien un 15 000 ou que tu donnes à un, un, ou bien à un militant mais c'est comme de l'argent que tu donnes à tes parents puisque ku si nekk fa nga dëkk say parents nga dëkkal parce que social bi ci la social bi ci la puisque aussi c'est ça c'est le si c'était pas la politique Même si tu ne fais pas de la politique, mais tes parents, tu dois les donner quand même, d'autant plus que ça, c'est pas de l'argent, n'est-ce pas Donc, nous savons, nous, nous, par rapport ak la euh, base. bi man ne ferme pas, je ne ferme ma maison, n'est-ce pas ku ñëw je les accueillir. bu ma mënee faj sa soxla ma faj ko bu ma ko mënul faj ma ki mais si volet bi ma ne maa ngi siy sant yàlla muy enseignement supérieur kon nag mu mel nii Assane ñu ngi ko doon wax léegi nii ah euh, li nga xam ne moom moo di rapport yooyu ngeen di am ndax euh, lim nga fi nga ne euh, ku mel ni ministre Omar Gueye bokkul ci ñooñu nga lim sur le plan national ñi nga xam ne ay ay kilifa lañ ay ministre ma doon la laaj ndax dafa bokk ci li nga xam ne tey day impacté ci li nga xam ne moom di seen diggante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di militant yi. oui moi je dis que dafa bloqué bu baax a baax. wala sax ni nga ko waxee day yàqal président. day yàqal président bu baax par exemple moi j'avais un projet pour euh, avant les élections concernant les cadre du département euh, on devait rencontrer par exemple euh, le coordinateur national je l'ai contacté on devait se voir mais malheureusement ça s'est pas concrétisé ndax yooyu rek et c'est pas de ma faute si boo wootee doo leen jot boo envoyé message alors il n'y a pas de suite et en vertu de quoi mais un ministre c'est quoi mais c'est un décret le député pouvait faire ça on dit que oui il a été élu mais un ministre c'est un décret c'est un décret qui te nomme c'est un décret qui te dégomme di fàtte askan bi leen il ne doit pas avoir ce comportement et moi je pense que le président de la République va rectifier beaucoup de choses ci fal gu bees gi. gu bees gi <laughs> parce que quand même il a fait ses sept ans macha allah alors il a beaucoup réalisé en principe si c'était pas notre comportement nous les responsables de l'APR puisque je ne vais pas taquiner nos parents de Benno Bokk Yaakaar mais je dis de l'APR suñu waaw du fekkoon ne suñu comportement ñun APR demewul nen na ni bon le président Macky Sall du jar sax mu def campagne à cause de son bilan positif mais nag xam na ne bu génnul woon ci géew bi jafandu ci benn Bokk Yaakaar jafandu ci mouvance présidentielle ak euh, les porteurs de voix du sotti. kon yowul euh, su ma la mënee jàpp euh, ci formation gouvernement bi war a ñëw parce que mandat bi nga xam ne mooy jàll ci weeru avril dana jeex le 2 su ma juumul yesal gi mooy defaraat loo xam ne day bees est-ce que da gis ne. président de la république pour mu pour mu euh, euh, defaraat lëggéey boo xam ne dana mucc ay man a yeggale li mu tàmbale woon faw mu am ay bopp yu mu teggi. ah man de je trouve que gouvernement euh, président bii ñëw moom mooy ki xam ne mooy kilifa gi moo am sañ-sañu fal ku ko ne mais day man si sama xalaat bu gàtt bu ma sañoon am na si critères yoo xam ne président de la république la ci dugg muy kotaawu département région ethnie religion et cetera. kon faline gi lan la war a doon. faline bi li mu war a doon fi ñu toll mooy koo xam ne wóor nañu kii bu ñu ko joxee post bi dina liggéeyal Sénégal puisque Sénégal. l'homme qu'il faut à la place à la place qu'il faut puisque émergence bi ñuy wax dafa war a nekk loo xam ne dafa réel te am na fii ay nit ay kàngam si Sénégal ñoo xam ne ils sont sérieux n'est-ce pas ils sont sérieux te bu ñu leen tegee si poste dañ liggéey. au niveau du gouvernement mais il y a yoo xam ne dañ doon liggéey dañ doon liggéey dëgg sans tricher et ils sont accessibles man xam naa si ñu bari ñoo xam ne ils sont accessibles mais am na ñoo xam ne seen carrière la ñuy gérer am na ñoo xam ne sax ñu ngi bëgg doon na Macky Sall déjà n'est-ce pas déjà te dara xewagul 2024 ñëwagul. doon na nga wax li ngay wax dafa graw doon na mooy par exemple euh, le remplacer à la présidence te loolu aussi moo nekk loo xam ne jaatuwul. boo gisee. te ñoo xam ne ci biir APR la ñu nekk. mais ci biir APR puisque euh, boo jëlee par exemple le président Macky Sall boo gisee mu def ba euh, élection locale yi boolew ko ak élection présidentielle bu ko defoon mën na jur euh, tuuxi dooni parce que bon ñu bari seen bopp la ñuy liggéeyal que le président de la République et pourtant il les a interpellés au niveau par exemple de de de Diamniadio n'est-ce pas alors centre Abdou Diouf Moi, j'ai même écrit un article par rapport à ça, puisque si nous avons, par exemple, plus de 530 euh, euh, commune au niveau des communes qui existent au, Sénégal, le président Macky Sall la réitéré la wax na ko waaw wa ak fanweer wax na ko ñaari yoon nee na na ngeen moytu bu ma leen joxee xaalisu campagne bi ngeen ne ay waa lii rek laa doon xaar diwu dina ko diggaaleeg man amoo ngeen bañ ko partagé et loolu boo leen ko defee képp ku ko def man ngay xeex waaw waaw la ñu seetlu foofu ñu taxaw tuuti parce que dafa mel ni yéen waa APR mbiicoo ak mbaloo am ngeen ndam de kenn weddiwu ko waaye dafa mel ni mbiicoo ak mbaloo dafa dafa tàmmali jamono bi euh, di gàllagooseel li nga xam ne moo di seen seen doxalin ba sax boo moytuwul bés mën na leen yàqal non euh, Moussa li xew ci biir APR kenn mënu ko wax les responsable ne se parlent même pas da ngay gis koo xam ne tu te responsable APR tu es maire, tu organises, tu invites les autres et tu n'invites pas les responsables de la paire loolu moo feew et c'est une réalité ku ma mën a démentir man je suis le coordinateur des cadres du département de Rufisque responsable APR à Bargny mais le maire de Bargny ne m'a jamais invité. lu tax dafa am lu ngeen jotee parce que ñun dañu foog ne bu ngeen defee lu mel noonu ay ay naatangoo ngeen ay wëllëre ngeen ci biir parti bi. je ne comprends pas son mandat. il m'a jamais invité et euh, naxarlu naa ko bi ci mujj mooy quai de pêche bi am barni mu doon loo xam ne lu rafet la ñun ñëpp dañu ko rafet rafetlu di ci remercier le président de la République di ci remercier euh, le ministre Omar Gueye puisque c'est le ministre de la pêche et moom moom mënoon na ci am ndam lu rey dans la mesure où bu fekkoon ne ñun ñëpp la invité ñun ñëpp la invité xamoo xaar ba campagne bi di pré ñëw mu door ko inauguré bu boogaa ndam lu rëy lay doon ci moom Euh, ci biir li nga xam ne moo di seen nekk ci biir Bargny euh, gis nañu ne événement yu bëri yoo xam ne effectivement da ngeen ko waroon a sumb waaye lu ci ëpp dangay ber saw saa mu ber aw saawam bi ci mujj mooy li nga xam ne moo di euh, campagne bii ñu weesu foofu dañoo taxawal comité électoral yéen ngeen dem ci beneen fànn bi taxaw comité électoral lu xew. wala ba tey ci ñàkk ànd bi ngeen ñàkk ànd ci ñàkk lay woo yow ci li nga xam ne moom moo di ay ay yëngoom. mais xamoo aussi. il faut que population yi di am la bonne information parce que on a l'habitude de dire way kii alors euh, dafa compliqué wala dafa iñaane kii. lañ koy taxé yow. waaw un maire un maire c'est la première personnalité d'une ville. c'est le répondant par rapport au au au président de la République n'est-ce pas. donc bu fekkee ne par exemple dañu ne dañuy monter comité électoral effectivement il m'a convoqué il m'a appelé. waaw boobu gisoon nañ la ba ma ñëwee tamit toog j'ai constaté on a lii un bureau nest pas on a fait un programme bureau bi sama tur figuré aussi programme bi aussi fekk ma fañ koy nase et pourtant j'avais bu fekkoon na fekkoon na fañ ko nase woon am na si ay amendement yu bari yu ma si waroon mën a def dans la mesure où mënuma comprendre nga def programme lu mel ñi campagne électorale boo xam ne pour le président de la république la amul benn meeting bu ci am bi ma xoolee caravane caravane laa gis proximité caravane ku proximité ba mu jeex takk alors ba ma fa jógee la ma waroon def def naa ko que c'est le maire c'est le premier responsable de la ville woo na ma teew naa la ma gis doyuma ma xam ne lii bu ma banquee sama loxo dina ñaaw si le président Macky parce que législative yi 39 pour cent lañu amoon si laa jógee sol sama daal gis képp ku ma war a gis bi ma gisee ñi ma war a gis des autorités y même un ministre d'État qui m'a appelé pour ma diir que oui Assane le président ne veut pas qu'on fait euh, beaucoup de comités man ne ko bu ñu si génnee suñu loxo mu ñaaw et noonu laa gisee les responsable euh, du parti de Bargny euh, de l'APR de la mouvance présidentielle et de benn Bokk Yaakaar si la ñu créé comité bi man maa ko sos man Assane Mansour Mbengue maa tax mu am <laughs> mais léegi Assane nga baal ma parce que xam naa ne euh, fi nga jë fi fi ñu dugg nii dafa grave parce que euh, dañu ne woon maire yi ñoom ñooy plénipotentiaires yi euh, yéen yi nga xam ne ay cadre ngeen yéen ñi nga xam ne ay responsable bu parti bi ngeen euh, tey jii nii dagg ci digg bi dogalu euh, président de la république créer benn comité parallèle àndoon ci sax ak ñenn ñoo xam ne xam naa ne di nga leen lim ku ci mel ni Waré gànna Seck doon jàppale Macky Sall am parti politique am naatal Sénégal ku ci mel ni également professeur Souleymane euh, Assou Diagne docteur euh, moom itam bokk ci waa parti socialiste euh, ki nga xam ne moo di Taaxa Samb également ak ki nga xam ne également moom moo di ba dara Diop mais yéen ñëpp ngeen bokk jógee fii ànd ak Dame Diop itam ngeen dem taxawal benn comité. comité bi. est-ce que du weddi est-ce que du teggi également waxu président de la République. aussi dafa am benn kii bu fi jaaroon muy législative yi. législative yi bu mu fi jaaree en 2017 man maay woon candidat au niveau de Bargny. j'étais le suppléant de du maire de Bambilor Ngagne Diop n'est-ce pas sur la liste nationale mais bi ñu ñëwee aussi euh, comme d'habitude on a donné les fonds au maire mais fonds yooyu maanaam fonds yi ngeen war xaalis bi ngeen war a campagne bi ñu war a campagne fonds yooyu bi mu ñëwee effectivement on nous a convoqué à la mairie mais bi ñu demee toog ñu def bilan bu pare alors le maire euh, bilan ba mu présenté ça dépassé n'est-ce pas, euh, l'argent qu'il a reçu. Bon, on a dit qu'il a, il a reçu 10 millions, mais il a fait un bilan de 12 millions et quelques. Cela veut dire que ñoo waroon uti outil benen xaalis dolli si moi je les ai dit que li ngeen bindi am na ci yoo xam ne vraiment mënoon nañ ko wàññi wala ñu def nii. maanaam revoir ko. voilà revoir ko et ils sont dit que man mii xam na may candidat dinañ ma dimbalee cent cinquante mille. Hmm. alors donc xam nga loolu vraiment du loo xam ne ay euh, rafet na si laa leen fa bàyyee dem jël samay moyens bopp euh, def sama campagne bopp gf fait deux meetings et meeting bi ma jëkk a def sax ñoom xaw nañ ko ay yàq. <laughs> yow nga doon camp nga daan candidat euh, pour euh, li nga xam ne moom moo di législative yi ngeen jot xaalisu campagne ci biir législative yi ñu jël cent cinquante mille francs pour yow nga waree ko def campagne. waaw dama ne woon sax. parce pour man loolu dama dama foog ne ni nga ko wax li ma li ma dégg moo baax. donc xam nga si rajo laay waxee. li may wax ni ku ko mën a demantir cent cinquante mille lañ ma jox ma ne du ma ko laal booy ne boo ko laal lañ koy jël ñu jël ko après bon bi may def sama affiche j'ai mille affiches. mille affiches xanaa cent cinquante mille nga ko def. non dama ko soxla cent man li ma def si affiche affiche yi dépassé na trois cent mille à peu près trois cent cinquante mille. mais boobu ana xaalisu xaalisu bi nga xam ne moom lañ jox la maire. bon moom moo xam alors mais néanmoins man bu fekkoon ne amoon naa moyen yenn yi. mënoon nañu gëm score bu ëpp boobu pourtant on a gagné mais on a gagné avec 39 pour cent. c' était pas suffisant. c' était pas mais nag aussi dañu dugg si suñu mbokk yi dugg si suñu militants yi expliquer leen et puis si vous regardez man maa defal sama marketing bopp boo xoolee photo lu ma si def ma carte pour Mansour Mbengue lu mu bon bon Bargny boo fi compté ñaari kër ñetti kër ñeenteel ba am na lu ma fa def. affiche bi mooy moo nekk na le l' affiche est n'est-ce pas c'est c'est des professionnels. foo tourner aussi doon nga gis bari ñi ñu c'est des professionnels qui ont fait ça puisque comme je donne des cours la chambre de commerce donc c'est le photographe les photographes de la chambre de commerce ñoo def affaire yi alors. donc xaalisu parti bi. du xa biir la du xaalisu parti c'est mon argent n'est-ce pas mais comme aussi yàlla bàyyi ñu am na as tuut boo xam ne peut-être mën nañu ko ci def. bon euh, puisque gëm-gëm rek la ñu am ah, parce que tey Macky dafa am ñu farax moom ak ñu féeteeg moom ñun nag dañu féeteeg moom bu affaire yi ñaawoon tey ñu bare dañuy dem ñun ñoo fi des mais yàlla def na rafet loolu la ñuy wax les militants de la première très bien maintenant li ci des bi ñu amee jàngat boobu présidentielle ñëw ma xam ne lii bu ñu defee si sera la même chose c'est la ñu teel a toog ma gis ñi ma war a gis nous avons vu comme ñu nga lim war a gànn sec docteur Souleymane Assou Diagne Alioune Badara Diop Taxa Samba Euh, Ndiamé Ndione Amadou Thiombane Doudou Dione Dame Diop et d'autres et vraiment ça a été excellent et je vous jure Moussa meeting bi ñu mujj a def vraiment envoyé un texto pour mu di ko Assane il faut qu'on pour faire le meeting puisqu'on n'a deux 200 mille francs actuellement je l'appelle le lendemain elle me di que Assane li ma la bindal ça ne suffit pas il faut ñu yokk ci sur la tête de ma main on s'est cotisé pour faire le meeting de clôture à Barniquet mais loolu lu muy nuru. bataille toujours sans l'argent du parti. sans l'argent du parti. alors que xaalisu campagne dugg na. na donc moo tax dañu war a xoolaat tànninu maire gis nga tànninu maire. Mm-hmm. war nañu voter à l'Assemblée nationale xool nu ñu koy def. looy proposer bu jamono boobu. man li may proposer mooy le maire. dañ ko war a xam avant coalition bi gagné. maanaam ñu def ko suffrage direct. direct mais buñ ko deful dangay ngay gagné ba pare ay combine bëre ay kii ku am xaalis sax man nga falu. daf amoon. mais du du du du bari ñi rek partout au Sénégal. lamb ji fi amoon daaw la gaa ji. lamb ji fi amoon daaw boo xaw ma et cetera donc yooyu dañu war a xoolaat fale nu maire maire bi war a nekk maire dañ ko war a xam avant. ñu gañe coalition bu ne bu ma gañee kii mooy nekk maire kii mooy nekk lii kii mooy nekk lii. mais Assane wax ñu euh, da nga mës a jote ci biir euh, mandat bi nga xam ne moom la maire ñi jamono bi euh, yore da ngeen mës a jote dafa am loo xam ne mës na leen a tàqale ba ba mu waral seen seen seen ñàkk ànd parce que. ci li nga fi lim léegi gisuma wala dégguma benn yoon à part comité bi mu la woo nga rocceeku fa foo xamee ne voilà euh, defal nga ko fa faveur waxal nga ko fa lu baax. Euh, franchement moi je dis que le maire de Bargny on a aucun problème et il est très correct vis-à-vis de moi franchement aw ma sama rakk la aw ma moom benn problème. heureusement pour tout le monde. voilà beneen bi mooy euh, avant qu'il ne soit maire il m'a fréquenté le maire de Bargny connaît mon bureau à Dakar le maire de Bargny connaît là où j'habitais à Maris. il connaît là où j'habite aussi à Bargny puisque depuis 2013 laa ñibbi sa Bargny j'ai aucun problème avec lui donc peut-être c'est lui le maire bi ñu ko falee c'est lui qui devait venir vers moi. cela ne s'est pas fait. voilà d'ailleurs je l'ai plus revu n'est-ce pas alors il m'a une fois invité à me rencontrer au niveau de la mairie tout au début alors je lui ai dit que je viens seul ou bien je viens avec des personnes mu ne ma il sera avec euh, quelques personnes quatre je ne sais pas et je suis parti avec Amandaw Thiombane et Doudou Diorno et je ne sais pas et Mohamed arrivé à la mairie je l'ai appelé bi ma ko oowee jot ko mu ne ma non je ne suis pas à la mairie je suis à la maison de la femme avec les chefs de quartier man ne ko ah bon d'accord mu pour ma ñëw foofu man ne ko non ok après je depuis cette date. noonu la invitation bi yàqoo. waaw noonu la yàqoo parce que aussi c'est lui qui m'a convoqué à la mairie. da nga gis ne respecté wul. Euh, mënoon naa bañ a dem mais du ma ñëw ba mairie mu ne man. est-ce que mais fekk ma fële fekk ma comment on l'appelle euh, maison de la femme je pas allé mais y a pas de suite il pouvait me recontacter parce que man li ma jàpp mooy. yow yaa nekk maire yaa war a dem xool ñi nga bokkal parti boo woowee nit mu bañ nag wala ñëwul nga xam ne kii woo nga ko mais il l'a pas fait. maanaam dafa war a xam ne dafa jaboote. voilà parce que lu mu nekk nekk xale mooy kilifa ci dëkk bi. puisque mooy ñëpp nag mujj nañ nangu. mooy mooy maire man day nangu cër bi man moom euh, je suis un. un républicain en quelque am na yoo xam ne dama koy respecté mais nag. Euh, vraiment ba mu nekkee maire ba léegi alors dafa xaala yoonam peut-être am na ñu ma àndal ñu ko doy ñu koy liggéeyal ma day amul lu ma associé e maa ngi koy ñaawlu parce que waroon na mën a continuer comme avant xam na ñoo bokk parti et dafa reetaan lu sax d'ailleurs man euh, kañ laa gëj a déggante moom 2000 euh, 2017 mooy woon élection législative yi si laa waaw si laa gëj a dégg abu si laa ko gëj a gis ba 2019 élection am si laa ko dégg mu ooma téléphone ma dem wuy ji tamit ñu gisee li may wax ni rek bu <laughs> amul moo kii loolu moo am c'est sur le plan politique est que tey est-ce que du yéen euh, fi ngeen yéegal seen bopp ay CCR ay cadre est-ce que également au sein de l'APR bokkul ci li nga xam ne euh, dafay tax plénipotentiaires yi gis ne yéen da ngeen nekk benn genre Euh, doublon nga xam ne voilà day gêner également li nga xam ne moom moo di euh, seen euh, seen niveau de responsabilité. bon vous savez même au niveau de la CCR je vous di tout au début ça marchait hein franchement bu ma daan wootee day fees del on cinq mille francs mais finalement les gens les cadres là ne cotisaient plus on a diminué ça jusqu'à 2000 ils ne cotisaient plus puisque dañu dem ba gëmatuñu lu bari. puisque aussi mentalité bi aussi il faut mu xaw a changer que ku si nekk rek tang boo xëyee da nga ne euh, Macky la war na la jox benn post de responsabilité certes aussi euh, le département de Rufisque est mal euh, mal servi hein ça je le dis haut et fort le département de Rufisque est mal servi mais pourtant am ngeen ministre de la pêche et de l'économie maritime ministre de la justice am ngeen également ay députés de la représentativité à l'Assemblée nationale am ngeen sax ay ministres conseillers euh, naka ngeen mal servir tey président de la République jël euh, le projet bi nga xam ne moom la gën a fonk muy Diamniadio andi ko ci département bu Tëngéej ba pare di préparer li nga xam ne moom moo di le pôle bi nekk Lac Rose tey jii nii nan ngeen mën a waxee loolu. waaw mais xamoo aussi euh, ñu koy remercier nañ ko ci ay plateau yu bari par rapport ak Diamniadio par rapport au département de Rufisque mais. Euh, am nañu trois ministres bon on a des ministres euh, récemment puisque on avait un seul ministre euh, monsieur Omar après on a eu Ismaïla Madior et le ministre du PIT bon on a quelques PCA mais au niveau de la CCR je vous dis. au niveau de la CCR n'est-ce pas. foofu la ñu desee dem tibb andi. voilà au niveau de la CCR dañu ñu dañ ñu jariñoowul et pourtant am nañu kàngam yëpp. yi xam ne dañ koy soxla si réew muy si gouvernement muy si direction yi muy si un peu partout hein. au juste lan la kon euh, non parce que am nay temps dañu daan wax ne waa Tëngéej juboo ñu mais waa Tëngéej juboo ñu moo tax nangam paraît-il que loolu la ñu am man dégguma ko ci gémmiñu président. parce que foofu aussi dañu daan mais waa Fatick ñoo ñu gën a jubóori <laughs> tojant waa kër président Macky Sall waa kër président Macky Sall tojante nañu bopp te ñun mosuñoo tojantey bopp boo demee Mbour ñoo ñu gën a jubóori boo demee faneen faneen ñoo ñu kon mbir mi du yéen kese waaw et on a relevé le défi encore une fois je félicite je félicite la population du département de Rufisque parce que lañ ñu doon taxé war nañ leen bu dul woon ak ñun région de Dakar affaire bi na ñaaw parce que nii Dakar nii Guédiawaye nii Pikine kenn yeggu fi 50 pour cent Rufisque ñëw noddanti leen ba ñu am 54 pour cent alhamdulilah rabbil alamin loolu moo euh, basculé moo tax ñun ñu mën a gagné. sauver département région bu Dakar donc gàccaa nga ngaalaama euh, département bi. loolu daf yaa ngi de dafa mel ni yéen dafa en tant que CCR rôle bu ngeen si joué. non man damay xool suñu kii bi nu mu tuddati euh, groupe CCR départemental de Rufisque ma gis samay camarades yi ni ñu muyee le maillot. les Ablaye Sow les autres Ousseynou Diallo tant d' autres yaa ngi dégg au niveau de Bargny y' a Ousmane aussi et cetera jël seen xaalis mouiller le maillot pour gagner boo demee Diamniadio y' a Pape Diouf donc man je connais tous les cadres de la CCR Pape Seck Adine gars yi ils ont mouillé le maillot ils ont dépensé leur argent parce que yorewuñu maire yi ah yorewuñu maire te ni mu demee am na des maires généreux par exemple. Albendoy, au le salue. Albendoy est un maire très généreux. Ah euh, généreux de quelle nature Il partage avec ses, ses, ses euh, euh responsables, euh, les responsables et ses militants. C'est que contrairement à vous entendre, ça va dire que vous savez ce que Non, moi, je ne sais pas si je suis Mais je sais que je suis un gis. Je euh, sais Moussa, à perdre la boque. Si nous avons cotisé 10 000, je vais cotiser. Si nous avons cotisé 20 000, je cotiser. lépp lu ñu def au niveau de euh, sali ou bien tubaab Dialaw je cotisais moo tax je peux les regarder les yeux dans les yeux bu ñu def jàmbalaay y avait cotisation de dix 000 et de 500 000 diaspora bi yu bëri di cinq cent 000 boobu ñu bëri fekku leen fi waaw ñuy dem di dem en 2014 lors des locales Bargny xam nañ ñu meloon on m'a plié la main pour que je reste avec benn Bokk avec Mar Diouf personne ne voulait partir avec Mar Diouf mais les responsables du département de tous du département de étaient au King Fahd Palace. ñu non du woon noos. dañu con dañu pour que ñu dem ak benn Bokk Yaakaar ñama àndaloon muy man Amandaw Combaan Ousmane et Laye Ciss tous les jeunes la ne voulaient pas aller avec Mar. si lu taxoon. non puisque Bargny gi yëpp ñoo doyaloon ne alors dañu bëgg a changement mais man en tant que coordinateur des cadres mënuma woon def leneen au moins tordu la main. pour que non man discipline de parti. et j'ai convaincu les pour qu'on parte avec Benno Bokk Yaakaar et on savait la suite. finalement on nous a gagné. lorsqu'on nous a gagné le maire qui est de l'APR est venu mais nous savons que le conseil euh, municipal de Bargny c'est pas l'APR. On que cinq conseillers là ba Il y a PDS ici, il y a PS ici, il y a etc., euh, etc. Alors, donc, donc, depuis 2014, c'est le nous gëj jël xaalisu parti benn Bokk Yaakaar 2017 comme y a un nouveau maire ñoom ñoo jël référendum ñoo jël législative ñoo jël bii ñoo jël nu mu tuddati présidentielle. mais mais ah, bii boo naan bii APR la APR la. APR waaw mais APR boo. xam ah, ne ah, c'est yéen mais APR boo xam ne ooloo waa APR. kon dootul APR. waaw donc du. non non bu ko laaxal li li ngeen gis nii bu fekkee ne yéen mënu leen bokk ak moom làng bokkul dootul APR. waaw yow ñun ay ñu ñun ñëpp nous sommes mais par exemple yow ku teg ndab ceebab jën yaa ngi dégg bien garni teg ceeb bi nga toog fële oow la est-ce que di nga ñëw na da ngay sukk si ceeb bi pour le kenn du ko forcer. ah kenn ko forcer. waaw doo ñëw baa ñëwee loolu du du nuru du xaraan sax mais loolu c'est du n'importe quoi. il n'a pas invité les gens. moi il m'a appelé pour que j'assiste lorsque je suis venu dama gis ne def nañ seen comité électoral yow yaa nga foon je pense dégg nga fen Assane Mansour Mbengue ci benn poste et pourtant le lendemain il m'a appelé pour ma proposer le poste de vice coordonnateur. dañ lay siis. vice coordonnateur. dañ lay siis ah loolu mais nag man. Assane Assane tey ban ban bilan ngay def ci gestion bi nga xam ne mooy deux 2014 à tey ci équipe municipale bi parce que bu fekkee ne ah, da nga da nekk avec un peu de recul nga xoolaat ak li fi am ak ni ñuy doxalee euh, dara dara xew na est-ce que li ñu doon séntu en tant que doomu ñi ci li waraloon équipe municipale bi nga xam ne seen maire euh, di APR également bokk ci yéen moo ko yore est-ce que tey jii nii. mën nga ñu limal bilan bi ci loo xam ne concrètement gis ngeen ne yéen waa APR def jot ngeen koy réaliser ci dëkk bi ak l'équipe municipale ma ne franchement bon je suis pas trop branché je suis pas conseiller municipal et pas trop branché par rapport à la mairie de Bargny mais des fois j'entends des échos vrai ou faux yàlla rek a xam alors euh, réalisation n'est-ce pas pendant cinq ans bon Je sais qu'il y a le un projet d'État, n'est-ce pas? Il y avait six quais de pêche yu ñu war a def Sénégal Macky Sall la baaxee ñu ko loolu ñu ngi siy gërëm président bu baax a baax avec son ministre n'est-ce pas pourquoi parce que ñun aussi dëkku mool lañu ay président ñaataa fi jaar ñetti président jaar nañ fi yaa ngi dégg kenn defal ñu quai de pêche donc bu président Macky Sall la ñoo def ñu quai de pêche vraiment ñu ngi ko si gërëm bu baax a baax a baax quant à le bilan du président euh, de, de, de du maire de Bargny peut après moom dina def euh, bilan. mais yow daal dara dara changé. Ah, ma day maa ngi dëkk def nañ front de front de ah, mer. boo demee booru poste de santé bu euh, euh, nu mu tudd jàmmalaay foofu également fa doon am saleté yu ñu fa daan taajal yooyu yëpp léegi dindi nañ ko et cetera. Ah réfectionné nañu defaraat li nga xam ne moom moo di poste de santé yi yeesalaat ko ak yenn école. ah waaw tu m'informes de sa donc c'est très bien. gannaaw raay laa dëkk. mais gannaaw raay bi day bëggoon naa fi ñu am marché bu mag a mag. parce que la doon xaw sa dëkk ba ay ah, ay ay taabal taabal moo fa am mais xam nga fii presque population Bargny yëpp presque ñu ngi fii y a que des jeunes qui ont des maisons ici macha allah et de belles maisons des fois on a des étrangers bu ñu fi duggee sax dañuy xaw a waaru bu ñu fa amoon marché bu mag a mag ah loolu dina lu baax trop. Ah, moom sax pro programme na temps yi rek laa koy dégg. mu koy wax ah benn maternité. bu ko defee dina baax trop. voilà maternité alors euh, tali karo yooyu. xamoo avec euh, Promoville hein yooyu bu ñu si mënoon a am tamit ñaar wala ñett avec net bi yooyu yëpp day baax. fii moom. voilà lëndëm na lëndëm na guddi. nawet bëri na poto. waaw et puis boole si aussi penser à avoir euh, une police secondaire aussi n'est-ce pas. mu désenclaver mu donc il a beaucoup de choses à faire quand même mais kenn mënul lépp mais s'il avait euh, s'il était très bien entouré dina gën a baax. man gis ne daal li ko wër. voilà il n'a pas été bien entouré. et puis aussi. Euh, da ngay ànd ak ñoo xam ne aussi dañu duñ la nax mais Sénégal dafa bari ñoo xam ne même Macky Sall am na ci le président Macky Sall. Ah, da waaw voilà da am ñoo xam ne da ngay ànd ak ñoom ñu lay jay rek te loolu baaxul nit ki boo ànd ak moom day naan ko eh nii nangam nangam explique ko xam nga ah da am benn manifestation jëlal sa këyit invité diw invité diw même si vous avez des adversaires politiques par exemple war Waragana Seck alors elle est conseil municipal elle est sympathisante de la paire événement bu mu def def ko war a invité n'est-ce pas. Ah, foofu itam euh, comme yow rek. voilà def ko war a invité il y a d'autres jeunes qui sont là Souleymane Assou Diagne vraiment c'est. Euh, waruloo am ay problème ak ñi nga dëkkal. voilà donc wala euh, très bien le jeune là moroomam la xam nga et puis politique aussi jarul ñuy non parce que tamit dara jaruñu on est des parents moi je dis kenn jaralu ma may noono non samay mbokku bari ñi que sa soit abu le maire que ça soit une autre personne ma j'ai aucun problème lépp lu ñu wax par rapport à moi sos lay doon mais man bon vraiment la politique laa jaralu moom je le fais je le fais pour euh, dimbali nit ñi su ñu génnee tey euh, Assane ci euh, li nga xam ne moom moo di lu tolluwaay bi sur le plan local ñu ñëw ci lii di élection présidentielle bi ngi ko doon wax léegi ñi am na 56 virgule 7 pour cent Euh, ci euh, li nga xam ne moom moo di euh, véritablement résultat wu ya génne woon ci urne yi ban jàngat ngay def ci réponse boobu Bargny def troisième fois de suite benn pour référendum benn pour législative benn pour présidentielle lan la lu waral tey Bargny continuer di faale le président Macky Sall malgré li ñu fi ñëpp di dingat yi nga xam ne moom moo di tolluwaay bi ci wàllu centrale à charbon bi mu bëriw coow ba ñu def fi mars bu mag tuddee ko Bargny Bargny ville rouge euh, ñu gis ne également port minéralier bi ñëw vraquier bi euh, gaa ñi naan sendu ñu andil ñu pôle bi mu jël suuf su bëri ci Bargny pôle port bi jël suuf su bëri ci Bargny terewul Bargny di watelaat Macky Sall ak li ñu koy critiquer yëpp lan la. Euh, gis nga Moussa Bargny des fois dañuy feddali. wóolóore président Macky Sall bañul Bargny de bi mu faleek léegi ñaati yoon la fi ñëw ñëw na fi trois fois même son livre page de garde bi gaal ak Bargny la si def Baye Daouda Gueye moo wane ginnaaw ak ware taax ak maire bi ñoo nee si kanam seulement nag dafa fekke ne Bargny yu si bari bien avant Macky je peux dire que c'est le président Ablaye Wade moo nu fi andil centrale bi puisque on a galéré pendant 12 ans puisque le maire l'ancien maire de Bargny dana woon ab ciment la ba xisee ba tooy kenn mënu ko utiliser le président Ablaye Wade a tout fait pour yóbbu ko PDS mu bañ. muy Mar Diouf muy Mar Diouf loolu taxoon Ablaye Wade itam di du coince dañu waxante dëgg. waaw jaar-jaar bi mu fi jaaroon ne jox leen ma mairie bi ma peinture ko bu bleu. waa Bargny paraît-il les que dana woon il va faire un village. parce que bi mu demaatee ñu defaat euh, découpage gis nga ñu ngi wéeru léegi si Diamniadio. dagg Sendou. yaa Diamniadio dagg Sendou def ko commune foo xam ne par exemple la population n'est pas nombreuse ak yooyu yëpp jaar fi donc ñun li ñu daloon si Ablaye Wade franchement bëgguñu mu dalaat ñu si dernier mandat le président Macky Sall. mais Sall bi mu ñëwee loolu gis ko fii jàmbat bi bëri yi mënu ko woon teggi benn yoon. non aussi comme projet bi xawoon na sori. man je n'ai jamais été avec le projet puisque moi je di dis toujours que fi population yi ànd fa laa mais dafa fekk ne projet bi sore woon na le premier ministre bu mu fi ñëwee en 2017 il nous a promis que dina jóge euh, charbon dem gaz. promesse nga wax de. non promesse incha allah dina ko def. 2021 2022. li ci des bëreetul. bëreetul loolu la ñu proposé te incha allah yàlla na ko yàlla def. yan yan yan garantie lay am bu fekkee ne loolu. non ñu euh, euh, ngi interpeller encore une fois le président de la république. Ah, yéen mu ngeen def fay bi. waaw ñu ngi interpeller encore une fois le président de la république si promesse boobu premier ministre def. parce que tamit ñëwoon na bari ñu dégg ñu ne dinañu defal ay chambre froide dinañu defal quai de pêche def na ko donc ku la defal loolu. donc ñun ah, pour l'instant quai baa ngi waaw chambre froide dina ñëw ban ak transformation produit halieutique de mer yi. même si on sait que pareegul ñu inauguré. voilà puisque am na ñu fa inauguré ñu pareegul. mais gars yaa ngi ci liggéey bi. mais loolu yéen ko fi commencé. voilà bon beneen bi mooy ñun la ñu daloon avec Abdoulaye Wade 12 ans de galère bëgguñu mu dalaat ñu 5 ans moo tax ñu dugg ñuy mbokk expliquer leen ne le le président Macky Sall n'est pas votre ennemi. parce que il y a le port minéralier c' est un projet depuis Senghor ay 82. Ah, mooy méthode proximité bi ngeen def seen. campagne et moom. andi na ko fii te man xam naa ne port boobu bu commencé vraiment nous avons tellement de gosses ay logisticiens ay transitaires yaa ngi dégg am na si ñoo xam ne ñu ngi loolu rek bari ñi ñoom dañu bëgg a transit donc ñooñu xale yi dañuy liggéey foofu incha allah te dina am ay emploi yu muy générer port bi newul faneen fii la ne si ñi Bargny Bargny Sendou donc loolu tax na nag bëgguñu woon ab gañ di am si département bi ak si Sénégal te Bargny du ci bokk. ànd loolu yéen loolu ngeen doon waajal. bokk naa si moo gën bokk ma si. Mm-hmm. bokk naa si moo gën bokk ma si. rawatina bu dee bu rafet. bu rafet donc ñun on avec Macky Sall on a convaincu nos parents à être avec Macky Sall et nous avons gagné d' suñu taux moo ëpp ah bi ñu am fii au niveau de département dafa jaaxal ñi bon les mauvaises langues ak ñi xam ne dañu contre président Macky Sall j'ai un ami qui dit que waa kii nee na ñu am na ñu doon wax ne waa Tëngéej ak waa waa Bargny dañu ñàkk fayda Macky Sall deful foofu dara ba pare ñu di ko watal xam nga ma nekk loolu yéen seen wax la puisque yéen xam nga ku gémmiñam di nàcc du wax du wax du du du ça n'a ak l' aspect fichier électoral l' aspect wu militant yi yenn saa yi xam ne da leen di étourdir ça n'a rien à voir li opposition bi doon contesté est ce que du loolu moo am bari xam xam bi yow xam nga ne ñun 57 bureaux de vote moo am bari 11 centres on a gagné 57 bureaux de vote yëpp looloo jaaxalaate. waaw dafa jaaxal ñu parce que aussi euh, opposition amu fi ñi par exemple ku fi ne réew mi amu fi dara pur bi ñu doon craindre quatrième la jël pur quatrième la jël puisque c'est le président Macky Sall suivi de Sonko suivi de Idrissa Seck après pur jël quatrième. après Madické bon tu euh, donc c'est ça hein, la réalité. bari ñi dañu voté normalement. léegi nag am na fu ñu la seen am na fu ñu la dégg am na sortie boo mujj def euh, di euh, yéen waa APR sax laay wax tendance bi nga xam ne mooy yow ak Mouhamadou euh, Taha Sam ah sa xarit sa xaritu abu aussi <laughs> maire bi alors ngeen di demander à ce que président Macky Sall gestu bari ñi seen message boobu lan la est-ce que nekkul loo xam ne chantage la voilà parce que da ngeen voté rek tout de suite dañ leen war a jox des postes de responsabilité gestu seen ab dëkk. Euh, xamoo boo déggee sama kawaraat euh, Taha Samb Korog ni mu waxee posé nañ ko question bi li mu leen wax mooy ne ñun Bargny lu ñu waroon a def def nañ ko président rek li mu war a def ginnaaw yàlla wax ne kenn mënu ko si forcer mooy xool li ko soob mu def ko. mais je rappelle que Bargny naa jamais eu de ministre. te li rappel rek la du woote. je dis non du woote je rappelle que damay xamal Sénégal. ne bari Bargny musul am ministre te kenn ëpp ñu fi ay diplôme ñun ku ñu waaj am sa diplôme ñu tekk ci table bi. mais ngeen ay généraux. waaw mais ministre laa wax on a toujours eu des généraux du benn sax on a toujours eu des des des des des gouverneurs des préfets tout lépp am nañu ko. mais de forme boobu la leen état bi di mais dama ministre masuñu ko am. dafa am lu muy changé ci doxalin bi. ah c'est une fierté ñu ne Bargny nommé nañu fa tel personne ministre. kooku def naa ne bépp sénégalais bëgg na ko. comme par exemple su ñu ñëwoon tey Assane Mansour Mbengue euh, bi jiite CCR bi tey mooy ministre de. non xamoo wax sa bopp man waxuma sama bopp xamoom wala ñu ne Mouhamadou Taha Samb tey mooy. ministre neexee ñu ne man wala ñu wax nangam et cetera mais xam naa ne daal li may wax di ko waxaat mooy bari ñi mosul am ministre. te na. weesu na sax. non en bu bu jot na sax mais jaadu na. non dafa jaadu mais boo xoolee généralement euh, ni ñuy def ma naa ko au début bugguma sax président Macky Sall di def ay quota yooyu ay tout ça mais dama ne bu jëkkoon bu ñu daan fal ay ministre dañuy xool ñi gañe seen i dëkk mais je ne peux pas concevoir que Bargny ait plus de 70 000 habitants nous avons presque 11 000 et quelques votants gagnés bu leer te ñuy jël ay dëkk yoo xam ne ça fait même pas 3000 habitants na gagné nañu 98 pour cent mais 98 pour cent wu 3000 habitants ak 98 pour cent 70 euh, 000 habitants c'est pas pareil donc Bargny daal du ma wax ne nañu jox ministre dama ne Bargny mosoo am ministre de l'histoire du Sénégal a eu des députés on a tout mais sauf ministre. Euh, lan mooy sa sa sa yaakaar ci tey. Euh, président Macky Sall tey bu bu bu bu waree defaraat donc xam nga def na ay projet structurant c'est vrai que am nañu tey à côté bi nga xam ne moom moo di euh, le pôle urbain de Diamniadio ak suuf bi nga xam ne yëpp jël na ko euh, port bi ak suuf yi nga xam ne yëpp jël na ko tey ñi di souffrir d'étroitesse ndaxte géej bi mu ngi avancé suuf soosu jël nañu ko sans compter les problèmes de pollution yi nga xam ne mooy bàyyeekoo ci ci centrale bi lan la moo war a doon les priorités ci Bargny tey. président Macky Sall bu bu taxawee rek jublu ci. Euh, président Macky Sall li mu war a gën a xool surtout pour Bargny mooy que pollution bi bari na trop. man la où j'habite il y a la Sococim. je ne sais pas comment on a donné les terres de Bargny à la Sococim c'est un critère et que ñun pendant plus de cinquante ans fi ñu doon exploiter ça ne Euh, cinq cent mètres carrés actuellement presque ñu ngi si ay kilomètres caxat-caxatee suuf si pour que kenn bañ ko mën a dëkk commencé aussi comme en Afrique du Sud ay jali suuf lañu defoon léegi dañ koy miir parce que des fois je di du jogging et damay gis ñuy def loolu loolu nag cim réew te am réew ñun yàlla na yéex dañuy dañuy dee jóge fi bàyyi fi suñuy doom ak suñuy sët ëllëg mën na jur ay problème yu rëy a rëy bu fekkee ne am na ay saafara yu ñu ci mën a def le président Macky Sall bu fekkee ne am na ay saafara yu mu ci mën a def na waxtaan ak les autorités de la Sococim waxtaan ak autorité bardinoise yi ñu jéem ko saafara parce que nag ñun aussi bëgguñu suñuy set di bari Bargny di dëkki faneen côté bii géej gi moo fi ne côté bii waa Sococim pôle bi mu ngi fii te pôle bi bu ma taxawee sama kër damay gis immeuble yi foofu suuf soosu su ma ñoom maam foofu lañ doon bay ñu dañ fa am suuf ñun. waaw rawatina sax ñi nga xam ne centrale bi daa jël. seen suuf te defaguñu leen fenn. ndawa ndawa ak jibal bari ni ku si nekk say suuf da amul tur ñun suñuy suuf jibal la ak ndawa yaa ngi dégg loolu nag bu ñu ko jëlee jox ko des étrangers naan dañu am ay projet n'est-ce pas euh, public ou bien ay projet national or que dañuy fàkk ba pare bu ñu defee benn affaire bu ndaw après di ko utiliser à d'autres fins. ñun xam nañu ce qui pass yooyu laa wax ne le président Macky Sall na ko xool beneen bi mooy na xool enseignement bi bu baax na ko gën a xool entre le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre de la des finances pour que xale yi xam na ñu ngi leen dugal ci école yi ñu gën ko gestu santé bi aussi ñu gën ci euh, waaw parce que foofu aussi gis nañu ko Bargny comme Tëngéej rek structure bu mag boo xam ne structure de santé la bu mën a bu mën a accueillir. waaye amu fi parce que fii lañu am ay centre de santé ak ay Njaay Juuf donc loolu aussi ku ñu ko defaloon ci Bargny alors dina ñu vraiment dinañ la remercier dinañ la gërëm. Macky Sall nag ñun bëgg nañ ko te yàlla tax ñu ngi koy accompagner alors mais na gestu Bargny. jot na jot na waaw. politique nag du diine ah. Hmm. waaw politique du diine c' est. vous n'en faites pas une religion. non c' ah, pas une religion mais on le fait pour. lan lañ lan mën a dégg ci gannaaw tey soo soo waxee ba pare mais fàttali nit ñi ne politique du diine. quelque part des fois da ngay too dox ci dëkk bi nga romb nit ñi ñu naan la félicitation. Hmm. félicitation di si teg leneen da ngay gêné wu. foog mu am ak mais. waaw def tu te gênes à la limite tu te bu dul kii di kaa mais na nekk doomu Bargny <laughs> loolu wax na de waaw bu dul kii di kaa na ne nekk doomu Bargny rek ñu ngi ci euh, ba tey euh, njeexital émission bi mbokk yi di fàttali ne yéen a ngi euh, daanaka si seen émission bi ñu duppee jàkkaarloo politique ci Jokko FM 87.7 ngeen mën ñu fekk itam ci li nga xam ne moom moo di la voix de Bargny LVB communication ci YouTube ngeen mën ko seetaan en vidéo alors asan tey jii nii. Euh, lan ngay tàggatoo euh, suñu xamee ne également fi ngeen def ci parcours bi 2014 ba léegi yéen a nekk ci jal bi euh, lan ngay tàggatoo mbokku déglukat yi gannaaw bu ñu la ñun remercier ci nangul gi nga ñu nangul tey ñu toog ak yow ci bile waxtaan. bon di la remercier bu baax musa Pouy di rafetlu trop liggéey bi ngeen di def ci département bi et sur le plan national. Mm-hmm. donc di wax ne aussi les populations du département et particulier de Bargny. ah ñu ngi leen encore di leen gërëm di leen sant di wax ne alors na ngeen patient te aussi képp koo xam ne le président de la république alors euh, jox na ko confiance n'est-ce pas ba am yu mu ko jox par exemple si bu tànk pour mu liggéeyal ko ci waaram mi muy def nañ jàpp ne képp ku mu ko ci def rek ñun ñëpp la ko bépp doomu département bi mu ci teg fenn ah nañ ko jàppale ñun ñëpp jàppale le président Macky Sall. te boobu appel xanaa def nga ko Bargny également. appel boobu mën na département bi rek Bargny ngi ci biir. alors te kon tey kon tey di nga di accompagner li des ci mandat bi fekk 2019 di nga accompagner Sarak Abou Abou Seck. non bu ma bu ma woowee mais je suis prêt à à mes idées à collaborer où est problème du ma wàññi dara mais il ne il ne du ma consulter. est-ce que ba nga baal ma sax question bi dugg na euh, Assane Mansour Mbengue ak 2019 euh, décembre day doon candidat. non tu sais que moi. ay parrainage ba pare xamoo man bu ma gisee gars yi di xëcc ko ay maire ki affaire yooyu sax dafa ça me fait rire quelque part. xam nga le problème qui se pose c'est quoi. c'est quoi sa ambition. c'est moo ñu moo ñu moo ñu soxal Bargny si boppam. moo ñu da bëgg nekk un homme de l'ombre di jàppale. Euh, non du ma nekk homme de l'ombre di jàppale xam nga man mën naa mën naa ñëw euh, dugg ci géew bi mhm. mais comme ni si nit ñi di duggee. man ni ma ko gisee c'est pas pareil. man gis naa ne coono la gën a jur que alors euh, leneen quoi parce que moi je trouve que pour Bargny c'est pas un nom qui va faire Bargny. c'est une équipe n'est-ce pas et si on a une équipe qui gagne on regarde cette équipe comme je l'ai dit avant. waaw toi ta profession c'est ça tu prends ça toi tu prends ça ñu defar dëkk bi mais c'est pas la personne du maire qui est importante. mais c'est l'équipe qui est importante man noonu laa gisee te bu ñu gisee man bu ma gisee ay nit yoo xam ne xam naa ne seen personne taxu leen jóg je peux collaborer avec eux voilà loolu mooy. malgré ambition ñu fi dégg dégg nañ fi Alioune Badara Diop dégg nañ fi Taha Samb waree gànn ak parti politique. Oh, mat na vingt mat na vingt mat na vingt et je je je même. ñi nekk sax ci opposition. je voilà toog ci mairie bi. et c'est pas ça la mairie là quand même euh, ça am na yeneen attentes yu ñu ci am. Bargny Bargny dafa am yu bari yu fi am man day j'ai beaucoup de projet pour Bargny. Mm-hmm. j'ai beaucoup de vous savez. Euh, du si politique rek la ñu mën a liggéey la Bargny ñun ñu ngi liggéeyal barni peut-être je ne pas si tu es au courant ou pas mais il y a Bargny Excellence qui fait du bon travail barni Excellence a construit des, une école. am na yeneen yoo xam ne mën nañ ko war a mën a liggéey sans la politique bu ñu defee ne jëli si xaalisu nguur gi rek pour defar sa dëkk la non mais dëkk bi incha allah dañ koy defar. Euh, destination 2019. deux mille dix neuf. Euh, euh, décembre deux mille dix neuf incha allah yàlla. APR. waaw ça dépend. Euh, élection locale hmm. dafa woote ay APR ay Benno ay nangam. yëfu dëkk bi la te buñ fa tolloo di nga xam ne lu bare changé no Assane Mansour Mbengue maa lay lay gën a gërëm. lii mooy doon seen émission jàkkaarloo politique. Euh, tey ñu amoon gan mu di nag Assane Mansour Mbengue moom mi nga xam ne mooy jiitee cadre APR yi nekk ci biir département bu Tëngéej nekk responsable APR également ci Bargny euh, doonoon tey suñu gan ci euh, émission bi nga xam ne moom moo di jàkkaarloo politique ñu doon ànd ak yéen itam ci li nga xam ne moom moo di LVB communication LVB TV ci fi nga xam ne moom moo di YouTube ngeen mën dem inscrire bindu leen. voilà donc euh, également si seen tablette ci seen portable si seen ordinateur pour mën a suivre lépp loo xam ne ñun jël nañu ko en vidéo euh, ngeen mën également di ko seetaan seen biir kër ak seen portable euh, def ay partage également bokk na ci li nga xam ne moom moo di loo xam ne moom lañ leen di digtal di leen jox dig daje incha allah ci beneen émission jàkkaarloo politique ak beneen gan jërë ngeen jëf